أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi tey mooy sunu ñetteelu dars ñuy eggali fadlu du'a mooy ngëneelu ñaan ginnaaw ba ñu gisee ñaari tomb yi ñetti tomb yi paase di wone ngëneelu ñaan ak màgg gi mu rëy ñu wone ne kii woote di ñaan dara taxul muy wone ak ñaanam ludul ba mu gisee ci boppam ne moom dafa tële ba mu gisee ne dafa aajowoo borom bi tabaraka wa taala di sàkku ci moom loo xam ne moom jaam bi mënu ko yàllaa ko mën mu yëg ne moom it jaam bi ba tey dafa am borom boo xam ne mbir yépp ci loxoom la nekk day dégg woote aji woo moom moo xam aajo jaam bi moom moo ko mën a fajal aajoom te sikki sàkka nekku ci jaam bi xam na loolu sikki sàkka nekkul ci jaam bi xam na ne moom dafa tële jaam bi xam na ne moom dafa manqué jaam bi xam na ne yàllaay ki mat yàllaay ki mën looloo tax ngëneelu ñaan am solo trop mbokk yi mu ne looloo tax ngeen dégg sunu borom ci aaya bi mu ne innahu laa yuhibbu almu'tadin man yàlla bëgguma ku ëppal nee na lim ci jublu ci aaya bi mooy taariki du'a mooy ku bàyyi ñaan jullit bi nga xam ne dafa wóolu boppam wóolu xam-xamam wóolu dooleem wóolu darajaam wóolu maqaamam ba bàyyi yàlla jullit boobu ko ëppal la ndax kat lii lépp li nga koy am yépp fokk yàlla bokk sa yëf di doog a sotti qaala al imaam ibnu kasir wa qaala ibnu jurayj yukrahu rafu sawt wan nida sëriñ bu tudd ibnu kasir nee na sëriñ bu tudd jurayj nee na sib nañ cib jaam muy ñaan yàlla sax di yuuxu di yëkkati kàddoom di woote di yuuxu ci kaw liñ ko digal moom jaam bi buy ñaan na toroxlu na dammi mbaggam na sajj ay xefam loolu lañ ko ñaan aaya bii di inna allah innahu laa yuhibbul mu'tadin bi ko ibnu abbas di firi dane fi du'a wala ghayrihi ci ñaan rek lañ ko wax waxuñu ko feneen yàlla bëggul jaam bu ëppal qaala abu mijliz innahu laa yuhibu almu'tadin mu ne laa yasalu manazilu anbiya jaam bi bëggunu muy ñaan ñaam boo xam ne moo ko tey xam ne ne yàlla du ko ko may yàlla dama bëgg a raw yonent yi yàlla dama bëgg a gën a baax yonent yi xam nga ne loolu moo si yàlla du la ko may yaa ko tey yàlla dama bëgg fii ma toog nga taw sama kaw asamaan xaalis taw or yaa ko tey xam nga ne loolu mun da nekk asaadi rahimahullah mu ne innahu laa yuhibbul mu'tadin yàlla bëggul ko ëppal mu ne al mutajawizina lil hadd mooy ñi nga xam ne ñaan bi dañ ci ëppal xamuñu fuñ ci war a yam fii kullil umuur moo nag ci mboolem jaamu yàlla yëpp yàlla bëggul ko ëppal mu ne bokk na ci ëppal ci ñaan nit di ñaan lu mënta nekk kawnul abdi yasalullaha masailun la tuslihu lahu ngay ñaan yàlla loo xam ne baaxul ci yow wala ngay ñaan yàlla loo xam ne mënta nekk waaw yàlla damaa bëgg nga taw nga taw sama kaw xaalis yàlla damaa bëgg nga may ma ma raw yonent yi yàlla damaa bëgg nga may ma lu ma wax rek mu am loolu mënta nekk waaw kon nag ab jaam na xam li mu war a ñaan ci li teey te dagan yàlla baaxal ko ci moom mu ñaan ko mu ne ba yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquran waduuhu xawfan wa tamaan yàlla buñ koy woo di ko ñaan yàlla lim digle mooy doomu aadama boobu jaam boobu na nekk ci diggante ñaari mbir taraqub wa taxawuf na fuuglu yàlla waaye na ko ragal ñaar yooyu moo nekk diggante ñaan nit buy ñaan day fuuglu yàlla fuuglu mooy lan jàpp ne yàlla mu ngi ko sëpp mu ngi koy gis yàlla ngi koy surveiller soo yëgee ne yàlla ngi lay surveiller nag da nga koy ragal kon nekkal ci diggante ñaar yooyu nga setantal mbir yi xam ne yàlla subhanahu wa taala pour ñaar yi am nga yaakaar ko ragal ko foog nga wàcce sa ñaari mbagg yi nga jaar ci yoonu njub yoon woo xam ne moo lay yeggal ci yàlla tabaraka wa taala nga ñaan yàlla ànd ak ragal lan ngay ragal mooy ragal mbugalam nga ñaan yàlla ànd ak xemmem looy xemmem mooy tiyaabam yi mu yor xéewalam yi mu yor kon ñaar yi ngay def soo bëggee yàlla nangu sa ñaan danga koy ñaan xawfan wa tamaan yaakaar ko ak ragal ko danga koy ñaan ngir yaakaar xéewal yi mu yor mu may la ko danga koy ñaan ngir ragal mbugal gi mu yor mu bañ la koo mbugal wa haada yadulluna ala fadli du'a li moo muy won ngëneelu ñaan mbokk yi ne moom ñaan wa annahu mahbubun inda allahi tabaraka wa taala lu yàlla bëgg la li annahu ruuhul ibaad ñaan mooy ruuhu jaamu yàlla pour nga dégg loolu ni mu réyee yaram lan mooy ruu bi yaram bu ci ruu jógee rek yaram nekkatu fa nit nekkatu fa néew moo fa nekk kon buñ nee jaamu yàlla ñaan mooy ruu bi kon jaamu yàlla bu ci ñaan jógee mooy jaamu yàlla nekkatu fa waaye yemul ci nekk ruuhul ibaad wa lubbuha mooy yuqu gi yuqu mooy yax bi li nekk ci kaw mooy yàpp bi waaye ci biir yax bi bën bëni am na lu fa nekk loolu mooy yuq moom lañ naan yuur da ngay dégg xale yi ñu ne toj leen yax bi génne yuur gi ñaan mooy lubbul ibaada waaye mbokk yi ñaan wa afdaluha ñaan moo gën ci mbooleem jaamu yàlla yi ndax kii ñaan dafay toroxlu ci kanamu yàlla toroxlu gu mat xoolal sujjóot juróom ñaari cër nga teg toroxlu ci kanamu yàlla dangaa teg jë teg bakkan teg ñaari ténq yi teg ñaari bëtu óom yi teg cati baaraam yi mu nekk juróom ñaari cër toroxloo ngo moo tax yàlla nee na soo sujjóotee jege nga ma soo ma ñaanee ma may la sunu borom subhanahu wa taala waxaat ci alquran wasalullaha min fadlihi innahu kaana bi kulli cheyin aliman aaye bi bu ko jullit ñi déggoon rek seen problème àdduna ak seeni problème àllaaxira yépp day réglé wu borom bi dane wasalullaha min fadlihi ngalawaay ñaan leen yàlla ci xéewal yi mu yore allahu akbar xoolal ki yor lu dul jeex ne ñaan leen ma su ngeen ma ñaanee ma jox leen kon lu fi des ab julit na ñaan yàlla wasalullaha laaj leen yàlla ñaan leen ko min fadlihi ci xéewalam yi te moom kat inna allaha kaana bi kulli shay'in aliman yàlla nee na man lépp laa xam lépp laa xam kon ñaan leen ma ma may leen mu ne naha allahu subhanahu fi hadihi al aya al karima an il xasad ci aaya bi boo ko déggee di nga dégg yàlla tere iñaan yàlla tere nit di yéene nit xéewal gi ko yàlla defal mu dañ dangaa gis sa xarit dangaa gis sa mbokk am dara bul ko iñaane bul ko yéene li mu yor dañ bal ñaanal yàlla li mu am yàlla may la lu mel noonu yàllaa yor yàllaa ko jox kon bul ko soxore ñaanal yàlla mi ko jox mu jox la bul ko iñaane bul yéene ci sa xol ne yaa ji li mu yor yàlla na yàqu ñaanal yàlla rek yàlla mi ko jox dina la jox summa bayyana sabab yàlla leeral na sabab bi nga xam ne al azam moo gën a rëy allazi yunaalu bihi al abdu mimma yatamannaahu inda xayrihi sunu borom a ngi leeral sabab yi nga xam ne moo gën a rëy yoo xam ne doomu aadama dina ko am ci yéene gi muy yéene wala mébét gu muy mébét ci leneen lu nekk ci loxo keneen sunu borom ne wa huwa al ilhaah ala rabbihi fi suaalihi jaam bu bëggee yàlla may ko na def loolu arabi naan al ilhaah mooy ñaan gu bari di baamtu di baamtuwaat yaa rab yaa rab yaa rab ay yow sama borom ay yow sama borom ay yow sama borom maanaam baat yooyu dee ko bëri ay yow sama borom maa ni doomu aadama sax soo sukkoon ci wetam naan ko ay diw ay diw ay diw xolam yërmande dina ci wàcc rawatina ak allahu subhanahu wa taala mi la bind kon nit na def ilxaax na bëri lu muy ñaan yàlla na bëri lu muy ñaan yàlla ci ay xéewalam ak ay yiwam yàlla nee na wasalullaha min fadlihi ñaan leen yàlla ci xéewalam yi lii soññ gu ñu yàlla soññ la xemmem gi mu ñu xemmem loola pour ñu koy ñaan yërmandeem ay ngëneelam gi sax ay xéewalam gi nga xam ne du jeex ay magasin ay namba yoo xam ne dafa fees kenn mënu koo jeexal bu doon dina jeex asamaan dootul taw mais waxuma la ci dëkk waaye àddina bi yëpp la taw bi wàcc jamono ju nekk bu doon taw bu doon xéewal day jeex kon bu neesee année bi beneen année du nees ndax dañ naan nees bi jeex na kon bu tawee année bi beneen taw dañ naan je dafa manqué taw na tawul ngelaw li kon ñu ne tey ngelaw amul waaw ngelaw li démb gaa yi nooy nañ lépp jeex na déedéet yàlla moom li mu yor du jeex ndax walillahi xazainu samawati wal ard sunu borom ne magasin yi wala tanqatiw abadan du dagg du jeex ala tuuli zamani wal makaan ci guddaayu àdduna ak place ak barab yàlla li mu yor du jeex te du mus a jeex wa qad zahaba baadu ahlul ilmi ila anna al amru bi suaalihi taala waajib lenn ci borom xam-xam yi sax mbokk yi ñu ngi jàngale ne ñaan farata la dafa war ndax yàlla nee na ci alquran qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum su fekkoon te ne du li ngeen may ñaan kon duma leen faale su fekkoonte ne du li ngeen may ñaan duma leen faale soo amee doom wala nga am soxna wala nga am borom kër nga doylu li mu yor doo ko ñaan wallahi du la faale du la faale soo amee mbokk mu am doo ko ñaan yittewoo ko wallahi du la faale yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizaman yàlla nee na weddi ngeen loo xam ne wallahi di ngeen jàkkaarloog moom xam ne dëgg la mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi xamal ne moom laa yu baali du faale du jox jaam boo xam ne dafa ŋot ba ne du tàllal yàlla ay loxoom yàlla nee na su fekkoon tenu du li ngeen may ñaan duma leen faale allahu akbar ay mbokk yi kon kon lii day wane ne fa dalla ala anna duwa sababun li inayatillahi taala li abdihi kon li tax yàlla di la faale mooy ñaan kon saa yoo bàyyee ñaan yàlla yàlla faaleetu la kon sabab bi mooy ñaanal yàlla yàlla toppatoo la ñaanal yàlla yàlla defar sa mbir ñaanal yàlla yàlla baaxal la baaxal sa mbir adduna ak àllaaxira jële nañ ci Nu'maan ibnu Basiir mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na addu'a huwa al ibaada ñaan mooy jaamu yàlla moom Nu'maan bi mu waxee hadis ba pare dafa jàng wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen yàlla ne inna allazina yastakbiruna an ibadati sa yadxuluna jahannama daaxirin jaam ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ba duñ ma ñaan duñ ma faale yàlla nee na safara laa leen jëme sëriñ bi nee na hadis bii bi yonent bi wax ne ñaan mooy jaamu yàlla day wane anna du'a huwa afdalul ibad ne ñaan moo gën ci jaamu yàlla yi ndax siixa bi dafa tënk ba pare lil xasr dajale lépp ci xam ki nga xam ne xam na mu gis càllala gi mu gis damir bi anna du'a huwa ala anwaul ibada ne ñaan moo gën a kawe ci martaba jaamu yàlla yi moo gën a yëkkatiku wa arfauha wa ashrafuha moo ci gën a yëkkatiku moo ci gën a tedd kon mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax mi ngi leeral ci alxajju arafa nee na aj arafa la képp koo xam ne da ngay aji maaka nga tardé arafa yonent bi nee na amoo aj arafa lan lañ fay def wa azamul hujjaaji al wuquufu bi arafa li gën a bëri ci jaam yàlla yi dañuy taxaw arafa arafa luñ fay def ñaan amul leneen arafa ñaan dong lañ fay def nit ñi dañ fay ñëw 9 heures ci suba ba keroog ñuy julli tàkkusaan ba tàkkusaan passé tuuti lépp luñ fay def mooy ñaan kon te xoola arafa mooy place bi yonent bi wax ne ku ko tardé amoo aj alxajju arafa aj daal mooy arafa arafa li fa gën a rëy luñ fay def mooy ñaan kon mbokk jullit yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk di leen fàttali ñuy tàllal yàlla sunu loxo ñaan sunu bopp ñaanal sunu bopp ñaanal sunuy njaboot ñaanal sunuy mbokk ñaanal sunuy am di jàmm ñaanal ñi ñu nekkal kenn ku nekk ci ñun yaa ngi ak problème yoo xam ne kenn mënu koo lijjanti ku dul yàlla yàlla xam na ko su jootal ñaanal yàlla tàllalal yàlla say loxo bul découragé bul ne def naa ko benn fan bul ne def naa ko ñaar nekk ci ba keroog ngay am solution. lan yàlla taxawu àdduna ak àllaaxira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.